mbokk yi xarit yu M4 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu bu baax ànd beeg suñu euh, ñëw ci xabaar ba nga xam ni euh, ma nga ñuy soog a dàpp mi ngi jëm ci Ousmane Sonko tey jii nag ma nga exiger ngir ñu delloowaat ko foofee ca euh, prison bu Sébikotane nga mu nekkoon moom leader bu Pastef tey jii moo xamle lu ni mel ki ñu ko xamal moo di kenn ci ay avocat di ko layal di maître Ciré Clédor Ly di wax ni Ousmane Sonko juróom-ñaari fan a ngi nii mu reprendre grève de la faim ba nga xam ni ni mu ngi ko doon amal tey ji nag mu nga ci hôpital principal bu Ndakaaru wante euh, kii di maître Ciré Clédor lii ma ngay woo nguur gi euh, ngir rekk mu xoolaat situation bu Ousmane Sonko ndaxte tey ji euh, nguur gi dafa mel ni rek dafa maanaam wane bu baax a baax ngir rek dafa bëgg a fàggagal kii di Ousmane Sonko jëmale ko ci moom itam ñii di ay avocat gis nañu ne daañ def seen kéem kattan ba lépp euh, mën a rek jaar ci yoon moom nag leader bu Pastef nee na euh, tey jii euh, dafay sàkku ngir ñu delluwaat ko ci prison gamu nekkoon ndaxte moo ko gënal ci jamono ji la nga xam ni ma ngi ko nekkee foofee ci hôpital bu Ndakaaru bu ñu ca noppee alors euh, ñu wax euh, ci leneen foofee ci université euh, Cheikh Anta Diop ngir tëj ko ay étudiants ñu ngay annoncé maanaam ne dinañ yàqate système éducatif bi ñoom nag nee nañ kenn du def cours tànk rek la nga xam ni moom la ñuy sàkku amuñu ko ñoom étudiants yi tey jii sax ñu gis si suba ñu gis ne dañ doon jàmmaarloog takk der yi gannaaw ba ñu leen sànni ay grenade lacrymogène gannaaw ba ñu bëggoon amal ab conférence de presse ngir wane seen euh, naqar wane itam ni rek réouverture des classes bi léegi alors ñu ngi ko amal euh, itam euh, gis nañu ne yëf yi fa mu mujjee ak ñii di way takk der yi njiital amical des étudiants bu faculté bu médecine di itam membre ci collectif amical bi di Alioune Diallo ma ngay woon nag ay natango étudiant am ngir nag ñu bañ accepter ñu tëj li tuddi amphithéâtre alors ñoom nag nee nañu tey ji seen mot d'ordre mooy dañuy paralyser système éducatif bi euh, moo xam préscolaire collège ak lycée kenn du def cours tant université Cheikh Anta bu Ndakaaru ngeen ubbuy ko alors loolee ñoom loolu la ñu xamle ne loolu mooy seen mot d'ordre euh, de euh, grève euh, buñ ci noppee ñu dem ci groupe de presse bu Walfadjri ñoom nag nee nañ kontaan nañu benn yoon wall wi nga xam ne jot nañu ko ci aide à la presse bi atum 2023 bu ñu sukkandikoo ci seen PDG di rek moom a Cheikh Agnes nee nañ ah, tum ren gi lañ leen jox moo di ñaar fukk million cote mu wuteeg loolu lañ amoon daaw tolloon ci soixante-dix millions de francs CFA mu nekk nag ak wàññeeku gu métti métti ci jamono ji nga xam ni euh, Walfadjri ma nga traversé nag ay euh, période yu ak euh, rek lu jëm ci conjoncture ba nga xam ni kon na xam ne ni buwaat ba ma ngi koy dund lépp bu ñu sukkandikoo ci moom Cheikh Niass Cheikh Niass di PDG bu groupe Walfadjri mi nga mbokk yi xarit yi li bokk na ci li fi gënoon fës ci rek xibaar yi nga xam ni moo la ñu jot léegi fii ci m ka TV di leen rafetlu bu baax ànd bi ak suñu ay programme di leen jaajëfal di leen jox jox dig daje ba beneen yoon.